sëriñ Jili Mbàkke mi nga xam ne moo nekk kalifa Daaru Salaam waa kër maam Cheikh Anta Mbacke moo fi bàyyi ko wuju suñu borom ci àllarba ji dëppoog le 27 janvier 2021 ca ndakaaru ginnaaw feebar boo xam ne tëraloon na ko bu yàgg ba léegi sëriñ Jili Mbacke nag ñeenti weer rek la def ci xilaafa gi ndax mi ngi nekkoon xalifa Daaru Salaam ci le 12 septembre 2020 ginnaaw bi fi sëriñ Mor Fati bàyyi ko wuju suñu borom waaye lu jiitu loolu nekkoon na xalifa baayam depuis 2014 bi fi sëriñ As Guédé bàyyi ko ci fàttali bi mu toogee xalifa rek ànd naag mbooleem kilifay Daaru Salaam yi cheikh yi dem yeeslu ci xalifa général des mourides ni ko yoonu murit baaxoo ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leexam te taas ci barkeem